asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyooti di leen ziar comme ni ngeen ko xamee rek ak Babacar du mën a ñàkk comme ne ko suñu papa Max Mbargane di waxe ah mooy borom du mën a ñàkk maa ngi koy béggee parce que tey maa ngi goxam fi nga xam ne moom mooy Lamsar bu ngeen gisee fi ma taxaw nag ak image yi ngeen di gis yaakaar naa xam ngeen ni maa ngi biir jàmm gën li ñu fandi nag mooy Sénégal goo xam ne dafa yëngu te ñëpp am ci kàddu te defe naa ñi nga xam ne ñoom ñooy mbëru làmb yi nit ëpp leen ci kàddu ndax la ma waxoon démb wala bëri ki dem ci refi ba maanaam mbër yi nit ëpp leen personnalité ci ñi ci xam seen bopp parce que la leen war ñu nga ca ñu nga ca seenub liggéey te itam soriwuñu ña leen yàlla booleel ñu ngay bokk ñoom seen teraanga ñu fekk si ko xam ne nag tey defe naa ci mbër yooyu ku ne xam na ko desu ko laajte muy Siteu bu jàmm gën ndax olof ne na waxi mag du guddee àll waaye du fanaan mën naa guddee waaye du fanaan waxoon na nag ay wax wax ja ba mu ko waxee mën nga ne xale wax wax ji waaye daa mel ni wax ja waxi mag la ndax lii am nii ci dëkk bi tey muy toj yeeg xeex yeeg jàppal baay daa mel ni junjoñ na ko fi ay ci ginnaaw mais nag wax moom dafay baax ngay wax ak ki lay déglu waaye di déglu te doo dégg da dul wóor moo tax nag tey ñu seet si ko mook ay nitam laaj leen jamono ji dëkk Siteu parce que ni ma leen ko waxee léegi rek si ci bi may ubbi defe naa ne Siteu wax ji comme li ma wax nii wax na ko fii il ay mois si ginnaaw wala ay fan parce que wax na fi waxati fi bari na fu mu dem yëkkati fa kàddoom di jooytu lu mel nii Siteu maa lay nuyu di la jaar defe naa ne tey li am ni Sénégal bokk nga ci jeune wala mboog mbër yi nga xam ne teel nga jël sa kàddu di ko dénoncer. di artu mu mel ni dañ la ko yëgaloon. da ko xalaatoon wala da nga ko gisoon wala lu xew ginnaaw bu ma la nuyoo. waaw man nag maa ngi lay fay aussi di wax ne jërëjëf borom Touba comme ni ma koy defee chaque jour jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul waaw di nuyu sumay famille di nuyu ñëpp di nuy àdduna di wax ne dañoo am combat boo xam ne combat àdduna la. ñun nag yaakaar nañ ne mënatuñoo waxaat dara parce que wax nañ lu bari mais ñun si liñ doon wax yëpp liñ doon wax yëpp lu ci ëpp mooy li ñuy gis muy population bi man damay wax naan ci banlieue bi laa dëkk jàmm gën fi jàmm sosoo fi jàmm neexee fii ki am fukk ak ki am dërëm ak ki am téeméer fu ñu dëkk booloo foofu laa dëkk waaw nit ñi nag di dund situation yu métti yu doy waar yoo xamante ne da am doom mu mat nu mu war a toll yeewu suba teel jàkkaaroog waajurum mu leer na sa yaay fukki dërëm rek la soxla te yow yoroo juróom sax yoo ko jox te am na ndaw yu bari yoo xam ne ñoo ngi doon góorgóorlu ñoo ngi doon am dara di jàpp ne lu ñu am ñëw bokk seen famille toog parce que banlieue la mais léegi loolu yëpp amatul parce que jeunes yi liggéeyatuñu jeunes yaa ngi dem ci mbënd mi loolu moo créé yaa ngi dégg ñii di si géej gi lu di am moo indi lii man tey su may wax ne benn affaire rek laay naqarlu mooy képp ku nekk leader nga nekk koo xamante ne yàlla may na lu tur ñaari nit gëm nañ la te bi ngay commencé kenn gëmu la ñooñu dañoo war a volonté wu booloo nekk benn say xool li xol tëkk bi ñu koy wax di communiquer ak doomu aadama yi parce que bëgg dafa métti xam nga nit ki bëgg la ba pare umpale la dafa métti ndax parce que yaa ngi koy nax parce que li nga koy woon dafa jàpp ne loolay àdduna te loolu àdduna dañuy jàppalante ñu doolante te bañ a xeebante xeebante rek a indi lii waaw fu ñu toll nag lenn rek lañ bëgg lenn dong lañ bëgg muy jàmm jàmm ji nag lu koy indi mooy ñi nga xamante ne tey ñoom ñooy politiciens yi di jàmmaarloo di wax si ñoo xamante ne si ñoom ñaar si affaire yoo xamante ne pour man yow pour man ay affaires yu ndaw warul tàrreel suñu suñu xalaat Babacar ñun sa xel lañ soxla sa xam-xam lañ soxla soxla xam-xamu kii soxla xam-xamu kii mais ñun ay vie privée doomu aadama yu bëri intéressé wuñ mais ñun jàmm la ñuy ñaan dañoo war a dem si kanam parce que ñun dañoo am ay doom dañoo am ay njaboot dañoo am ay jarbaat te ñu ëllëg seen ëllëg ñun ñoo ko yor mu ngi suñu loxo ñun ñoo war a sauver ñooñu pour xale yi mën a jàng école yu baax pour xale yi am éducation bu baax mais léegi da ngay gis xale sax yow ni dëggay jur ba pare mais talu sax doomam parce que amul temps bu mu toppee doomam. parce que lan àdduna day jeex nañ ñaan yàlla jàmm dox si jàmm man loolu laay wax di wax ne amuma benn jeune bu may conseillé ne ko non defal lu bon gëwuma loolu gëwuma loolu te képp ku yaakaar ne danga war a am doole rek wala nga am jëmm rek nga war a jël sa doole ak sa puissance nga jëmale ko si population bi ah, ah nekkoo ci dëgg këmuñu si loolu nañ def nag nañ isaan fii banlieue la bu dara amee day métti si ñun. parce que ñun suñuy nijaay yi ñoom ñoo fi investir seen xaalis suñu rax yi ñoom ñoo investir seen xaalis boo génnee léegi manifestation am ñu gaañ kenn boo ñëwee mu nekk sa jarbaatu xarit wala mu nekk sa raq xarit yow lay wax ñun suñu biir la nañ xool lan mooy dem ngir yàlla war rasul ñu jàppale ñu si loolu loolu dem ñun jàmm la ñuy ñaan lu jàmm xeju si suñu xool yi sëriñ Tuubaa ci ne sëriñ bi lañ bëgg moom lañ jox suñu lépp wallaahi nan nit ñu góorgóorlu lii dama ko doon wax avant chaque jour may wax mais da ngay gis ñoo xamante dañu war a volonté war a toog wax mais du ñu wax de te tey ñooñu tey ñoom ñëpp ñoo ngi tiit ñoo ngi dem toog te bëgg a dee taxul nga dee yaa ngi dégg bëgg a dee taxul nga dee mais tamit bañ dee taxul nga bañ a dee mais nit ñi ragaluñu mais daw si jàmm ndax parce que dañoo am ay rakk yu jigéen am ay boo yoo xam ne amuñu sax quinze ans. te seen avenir moo ngi suñu loxo kon ñoom fan lañ jëm àdduna bi ñu nekk ban àdduna la Sénégal bu ñu nekk ban Sénégal la ñu jàppale te bàyyi caaxaan yi ñu waxante dëgg wallaahi ma loolu laay wax et parce que amatuma leen lu may wax lu ma waroon wax yëpp wax naa ko ku seetaan samay vidéo avant xam ne wax naa lu bari maa ngi ñaan yàlla jàmm si dëkk bi di conseil képp kuy jeune danga nga jërëjëf. mais mais mais ah, li nga xam na solo mais il faut tamit ma laaj la parce que tey boo xoolee politiciens yi. yaa ngi dégg boo xoolee coow li am yëpp à chaque instant Sénégal bu bu ñu ne ay nit dee na wala ay nit na ci coowal politique lay jógee politiciens yooyu ñoom itam parce que ay dee dee am na fi 2012 amaat na fi tey amoon na fi ay 88 ay 93 ci ay élec loolu yëpp day am mais politiciens yi tamit est-ce que est-ce que ñoom yow da nga jàpp ne dañoo moom dëkk bi wala qu'est-ce qu'il y a. non non moomuñu dëkk bi. ñun nag ñoom ñoo yem ci dëkk bi dañ leen wóolu rek doylu leen jiital leen dénk leen suñu dëkk parce que bu ñu soxlaa ñun suñu carte la ñuy ñëw jël si waaw te ñun dafa am lañ ñu leen di toppee li ñu leen di toppee lenn dong la mooy suñu baqanu ndaw yi dem ba ñooñu laay masawu wallahi damay masawu ñooñu yaa ngi dégg di yëkkati nag sama loxo sama loxo man dama ko yëkkati di ñaan képp ku nekk. ci armée bi wala nga nekk yow nekk om de tenue maa ngi lay ñaan di lay wax ne nañu bàyyi xel ne ñun seeni jarbaat lañ seeni raq lañ seeni doomu bàjjen lañ seeni mbokk lañ jàmm rek laay wax jàmm rek lu dul jàmm jàmm la gën lu dul jàmm jàmm la gën li sëriñ bi wax rek dafa doy misaal sëriñ bu mag bi dégg nga lu wax loolu képp kuy gor boo ko seetaanee barke maam Serafal yow loolu dëgër dëgër sa rongoñ day tuuru faal nañ jàppalante ma loolu rek laay wax. mais mais mais mais ci takk der yi xam nga takk der yi tey ñun ak ñoom defe naa ñoo bokk ndey ak baay parce que ci ay kër lañ jóge yow am nga mbokk yu nekk takk der am naa ko keneen am na ko. Mhm. mais gis nañ mu dem ba mel ni dafa bëgg mel ni benn noonu bu am suñu diggante ak ñoom ba yaakaar naa am na nit yu moor ci si maanaam ci civil yi bëri na tey ci takk der gis nañ takk der boo xam ne yaakaar naa ne loxoom dégg naa sax mujj nañ dagg loxo ba muy lu doy war lu metti ndax lan alalu àdduna ndax lan àdduna jaru ko jaru ko man pour man dañoo war a jàppalante mooy baat bi ma lay wax nañ jàppalante te jàppale jeunes yi jeunes yi liggéey yi dimbale seeni waajur yi man loolu laay wax Sénégal moo ëpp jeune te damaa gëm ne moo ëpp bërëbu liggéeykaay kon pourquoi ñun mënuñu liggéey lu tax mënuñu am yow suñu ndaw yi di jóge fii di dem ci bitim réew di dem fu nekk di immigré lu tax mënuñu toog ci biir dëkk bi liggéeyal dëkk bi. volonté wu yëkkati suñu dëkk yóbbu ko feneen. est-ce que autorité leen di jàppale pour ñu toog ñëw leen a war a jàppale nag dañ leen war a jàppale man loolu rek dañ leen war a jàppale il faut ñu jàppale leen il faut ñu jàppaleen leen parce que état bu fi nekkee dafa am ñu muy teg fu nekk dafa am fu mu fay teg fu mu fay teg mais ñooñu man dama gëm ne ñooñu ñoo desee jàppale dëkk bi parce que kenn ku ci nekk bu ñu la waxee defal lii ci gox bi wala demal nga liggéey gox bi nga nekkal sa bopp nga nekkal sa bopp ba kañ li nga yor da ko mën a deewaale kër gi nga dëkk da ngaa mën a tëdd si néeg yëpp saal bi nga toog damaa mën a toog ci salon yëpp mënul nekk il faut ñu laabal suñu xool yi ñu yéenante ñu dem ci kanam Sénégal jàmm lañuy dox jàmm lañuy ñaan ak ku mu mën a doon réew mi nag ku fi yàlla mën a teg yàlla nekk gën su ñun ki ñuy liggéey suñu suñu tay ak suñu ëllëg kooku lañ gëm ñoo ngi ñaan yàlla nag di wax waaw wax yombul waaw wax yombul te mënatuñ fi wax lu fi nit waxul. Sonko ak Macky loo leen di wax parce que nit ñi dañ naan Sonko Macky Sonko Macky loo leen di wax ñoom ñaar. ñu firi ñu wala ñu leetuñu parce que ñoom ñoo yor suñu liberté suñu lii suñu suñu life pour mu baax ñoom ñoo ko yor pour mu yàqu ñoom ñoo ko yor ñoom nag ñuy choisir bu dee ñun seen i njaboot lañ te ñoom dañ doon wax ne ñun suñu seen i njaboot lañ ñoom ñun rek lañu am ñun lañ bëgg dimbali nañu dimbali nañu dimbali ngir yàlla war a suur nañ jàpp góor jàpp ci góor ba góor yeeg fa mu jëm sëñ bi nee na ñaari mbokk jullit ah Fall loolu warul metti ah kon doy na man amuma leneen lu may wax. démb tam seetaan nañ ko mel ne Idrissa Seck génn na wax na te ci autorité yi bokk parce que dafa yor institution kooku tamit wax na ministre de l'intérieur Antoine joom wax na ñoo ñëpp ay kilifa lañ ci état bi. Lamine li ma la wax man du ma wax xaw ma sax si ñi ngi may wax nii parce que man maîtriser wu ma affaire état loolu ñi si xam. dama la yàgg wax ne la ñi am xel nañ communiquer ci seen xel yaa ngi dégg kenn ku ci nekk pouvoir bi la yàlla may mais dama laa ne ñun suñu réew mu am jàmm man moom a gën a intéressé nga may wax A ou B waaw man askan bi moom a ñor yàlla nañ am jàmm yàlla nañ yeewoo jàmm buñ narul am jàmm parce que Serigne Bamba ñàkk jàmm boobu yàlla yem si ñun. mbër yi ñu tudd ci mbir mi parce que cité nañ fi ay mbër ne bokk ay goro bara lañ dañ leen recruté woon di leen fay pour ay nervi gëwuma ne ay mbër lañ gëwuma ko bàyyi leen ku ngande rek ñu ne mbër la ku rek ñu ne mbër la non non mbër du def loolu mbër mën naa am supporter am di koy dóor ñun ñoo ngi toog fi ñu war a toog am na yoo xam ne du ma sax wax du ma ci sax commentaire parce que ñun duñu gis ponkal bu toll nii nga war a toll ngay dóor suñu mboq wala ngay dóor population bi ñun duñ la seetaan ñun buñ dajeeg yow dañuy rayante ak yow yaa ngi dégg duñ def loolu nañ jàppale xale yi jàppale xale yi nañ jàppale xale yi ngir yàlla dëgg neexul de barke Serigne Bamba te ñun suñu dëgg dañ ci sotti suukar sotti si xorom pour mu saf rek mu nooy rek waaw mais kenn yëngatuwul jàmbaar yi ñu ngi fu ñu war nekk de benn jàmbaar yëngatuwul parce que baaxu si ñun suñ ko defee suñu kaw lañ koy defaat yàlla na fi jaamu yàgg ma loolu laay wax di masawu képp ku ci ñàkk sa bakkan képp ku ci am métit ak gendarme bu ci mën a am blessé yu ñu gis yëpp gënaluñu parce que bëgguñu gis yooyu suñu bët yi suñu bët yi jàmm ci nekk di ndongoloo di wax ne na bët ak làmmiñ dafa war a ras lu dul jàmm jàmm rek la war a ras kon ñoo ngi ñaan yàlla jàmm nekk fii waaw wax nag yombul ma loolu laa wax wax yombul te fu nekk dafa jamono ju ñu nekk dafa métti dafa métti waaw di woo ñëpp jàmm di wax ne képp kuy jeune du jàmm gën ñoo ngi lay masaw di lay wax ne aussi tamit soo manifesté wu ngay wane danga am lu la métti da nga wane lu la métti mais bul yàq dara. bul jël alalu kenn parce que bu dee loolu mooy amee waroo bu dee loolu mooy maye yow waroo am waaw. maanaam jël alalu jàmbur yi. di ci profité wala di jëlee alal. ci mun doon laa wax ku mu mun a doon ku mu mun a doon bu dee loolu mooy maye loolu du may gor loolu du jàmbaar loolu du baalu soxtaar ma la. yow loolu curki ndaa sa la gën ci kër yow ŋaata wataa sa moo la tane barke maam Serafal dëgg neexul bu diggab jaambur jël la fa ne barke Serigne Bamba kooku góor yàlla du def loolu waaw waaw ñun suñ dëkk bi duñ bañ duñ nangu kenn ku ko yàq waaw kuy manifesté wu manifesté wul nga wane sa métit wane sa naqar mais kenn duñ nangu kenn yàq parce que Serigne Bamba lu yàggul dara péage bi fii lañu gis benn xale bu jigéen boo xam ne doomam bu ndaw la àndal mais kooku ñun bu ñu amuloon ku ko gunge est-ce que du du sànq doomam jooju est-ce que buñ ko bu ko dara dalee est-ce que doomam jooju fu mu jëm yu mel noonu la ñu war a xool yu mel noonu yu sew sewaan yooyu nga dugg ci banlieue bi gis suñu yaay yoo xamante ne dañuy teg cin du ñu am lu ñu si def barki Serigne Bamba ñooñu boo leen si bëggee tegal fitna na métti day métti nañ dimbalante nañ bin dimbalante comme ñooñu amul lu ñu si def di am doom boo xam ne non sax am foo mun a jëlee fukk kon nañ si teg jàmm jàmm moo gën lépp moo gën lu dul xamuma la moo gën leneen waaw man nag maa ngi masawu ñëpp waaw di wax ne nag xëy na mënu ma mënu ma développé sax si wax bi parce que suñu xool waaw ñun ñëpp waaw na ñëpp génn. na ñëpp génn képp kuy kilifa nga am voix ni ñu bëgg la génnal génnal nga raas jàmm parce que jàmm moo gën ay waaw. fi may tëjee ak yow dañ boo dégg tey ñu naan xalif généraux yi ne ci dëkk bi yàlla nañ fi yàgg te wax nañu ak kilifa gi ci li ñu ci li ñuy dégg mais dafa mel ni dafa leen xaw a déggul wala xaw ma bokk wala tànqamlu wala yu mel ne kii noonu lool ñu ngi koy for ci wewu bay lool soo ko déggee est-ce que loolu tamit euh, noo ko gisee. ah nañ dégg waxi kilifa bi. nit bul dégg tëll rek ne rajax waaw man gëwuma loolu wax kilifa yi dañ leen war a déglu képp ku la ne ñoom déglu wuñ ko wala defuñ ñu yow gars ñoo ñu gën a bëgg jàmm de ñun gis nga ni ñu bëggee jàmm ni ñoom ñoo ñu gën a bëgg jàmm kon jàmm boobu bu ñu am complexe bu ñu rëy si ñun parce que ñun ak ñoom ay famille lañ nañu jox jàmm rek ñu jël jàmm ji comprendre nga waaw amul lu dul weesu nit doo juumee sax mën nga rectifier sa bopp xamuma la ay nit dong lañ du ñu yàpp du ñu jën ay nit dong lañ ay nit dong lañ waaw lisan daal suñu suñu suñu ñun suñu avenir ñun jox nañ leen ko mu ngi si nii seen loxo suñu avenir wallahi ñun jox nañ leen ko. waaw waaw ñoom ñi ñu jiitee mm-hmm. nekk suñu njiit mm-hmm. suñu àdduna suñu avenir jox nañ leen ko mm-hmm. parce que buñ ko baaxalee rek mu baax suñu mais buñ ko sabotee rek mu sabote waaw kon ngalawaay bu ñu def loolu ngalawaay buñ ñu def loolu waaw. sama xol dafa fees mais mais yàlla buur bu baax la yàlla na yàlla dàq say. yàlla buur la ñun tàppe xol yi lañ gëm. barke maam Serap Fall. waaw sëriñ bi doylu nañ ko. waaw ñoo ngi koy diis lépp nag. waaw ñoo ngi koy diis lépp. Uh-huh. waaw jërëjëf. kooku mooy setabu bu jàmm gënaa ah, loolu na demee woon xulle kon yaakaar naa ku ne dégg na li mu wax ak ñi mu nekkal woowuñu kenn ci ngay. toj ay bagages yi jaamur wala nga koy jël parce que jàpp na ne loolu du yëfi gor te loolu ko muy may jàppal ne kon doo am defe naa loolu tamit wax ju leer naññ la am nañ droit nag ñaxtu wax li ñu naqari yaakaar naa en tant que ay sénégalais waaye comme ni mu ko waxee rek loolu tamit ñu bàyyi ci xel bu baax a baax mais kilifa it encore une fois rek ñu wax leen ko waxaati leen ko ñoom ñi nga xam ne dañ ne ay politiciens lañ ba ñu jox leen administration Sénégal ñu di ko doxal nañuy déglu askan wi gis nga askan boo leen jiitee bëgg leen a jariñ da leen di jege di leen déglu waaye nag bu fekkee yow tam da ngaa tëj ci sa bureau xulle climatisé say secrétaire wër la boo wàccee sa 4 x ngay dugg dugg corniche bi dem jël avion génn Sénégal da nga naan fépp tuute benn fekk na booba am na ñoo xam ne ñu nga diggante jàmm gën ak jak saaw wala ba bawal gële ma dëkk ñu ngi ci problème boo xam ne kenn xamu ko yooyu nag sonal nañu parce que nit ku ñuul itam ni muy jariñoo nguur dafa ëpp yooyu dafa day dem ba day ëpp yàlla bu la yëkkatee wala mu jox la pouvoir da ngay fexe wàcc sa bopp yéen ñiy xëccu tamit bëgg a jiite réew mi tamit loolu lañ leen di wax parce que yàgg nañoo am déception ci koo xam ne daa xëccu bañ jox ko mu wan ñu leneen lu bokkul ak la ñu bëggoon te yooyu gënaluñu kon ñu ngi fu doomu aadama nekk si àddina bi rek waaye di ñaanal sunu xalif généraux yi tamit yàlla na leen fi yàlla yàggal barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que moom réewum jàmm la te dégg naa Serigne Touba daan na wax ne xulle jàmm du doy àddina giinu ne waaye ëllëg yowmal xiyaam gële ñu jëm du fa doy kon lu dul jàmm jàmm ko gën